asalaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien tey la ñaar fukki at ak ba bateau la Joola suuxee yàlla bu suñuy ñaan dañ ci ñoom école ngi ubbi jamonoy jamono Sénégal le a ngi sax pour mu togg ceeb léegi jafe na lu yaa ngi lompoñ te amuñ fuñ ko jooyee njëkk yi di yokk nu mu leen neexee état dina la ko ci wet président Macky Sall la ngi dem ci këri diine yi tey tàggoo di digalaale di sàkkuwaale ngir ñu ñaanal Amadou Ba mu nekk président gars yi kii day campagne ale wallaay wallaay Boun ca la mu nekkoon caaxaanu ci démissionné na bisik abda nu mu tudd ci maam booy jaaw bind na lii wër ni ñu génnee Sonko ci liste électorale ba pare ne ko amul diir def recours la ñu ne jaayaat doole la na mu yore port naqare lañu fay liggéey Abdourahmane Baldé jël na lengey Lonaas wutulaat Diop mi def chiffre d'affaires de douze milliards Sénégal lëmpañoo na jaxasoo